1895 18 safar la Serigne Bamba dëkku yéen bax dem wuyu ji fajar la génn Mbàkke ànd ak ña ko dar ñoo ñaadaroon rasoolu ñooy ahlu badar pi sëhëri safar la ànd ak ahlu badar ahmadoo eh gore ahmadoo eh sagal safar su ma heure di 18 heures 18 man daam su ma doon kon ma safar ahmadoo eh ne woon nu màggal weeru safar santale ko yàlla sa de suite safar fallu borom dindi seigne fallu ne de suite safar nan daje Touba santale Cheikh Bamba bu wér moo tax ku màggali bésab safar jihar nga aj nga umra nga am nga defar ñi tegg ji malaka ñepp fi tew ngir jey Cheikh Bamba bes bi lay siw ñay mepp dox ba foo marché dubai bàyyi kum ñay moo rew safara ci gaaw pel ngi jaay jaay nag yi bay soog a teew naaru gànnaar gi leen pulaaye seen été ngi teew minicar ak biis car sat palaas soog a teew avion ak saxaar iliko seen été ngi teew moo leen ubbi safour wala sax ni kook suur ak assurance yi seen été ngi teew extension totale seen ak urix si soog a teew Touba wala yéen a xewle seen été ngi teew mboolem mi fi aar askan wi sapeur police gendarme Croix-Rouge semi seen été ngi teew mboolem ko fi menuisier tôlier organisateur mécanicien électricien sab été ngi teew mboolem ko fi tailleur wala ngay jaay katu tisi noblesse jesnees goldu sab été ngi teew mboolem ko fi luye ay rajo walay mbana ay matelas walay baas sax sab été ngi teew jërëjëf mboolem ko fi luye ay lampit walay mbool moo xam palaat walay sees sax sab été ngi teew mboolem ko fi jaay koko këriñ matt ak gaz usine galas usine xoromit seen été ngi teew mboolem u fi jaay musoor aseté ndoxum kireen kirdan fëriñ kaasu aseté sab été ngi teew mboolem ku fi jaay passami wala vermicelle macaronas paquet couscous sab été ngi teew mboolem ku fi jaay ceeb ak diw soble nen oromase ki laaj dollee ki mu tàdd sab été ngi teew mboolem ku fi jaay kilimanting ndaama raas woggu si déem déem ndiiraan sab été ngi teew mboolem ku fi jaay kaani salaat oroma seeg karawet poobar bineegar sab été ngi teew mboolem ku fi jaay salaat concombre pomme de terre mayonnaise beurre carotte kaani sab été ngi teew mboolem ku fi jaay bu yëg bisaab ripaas ngooñ tànkaay yiire uude buuse seen été ngi teew mboolem boisson ak lu fi kafeek xeeti meew tampiku sifre ardo sen ete ngi tew limal ananas limal gasel gasel pom sprite rani malta sen ete ngi tew limal banana ak orange pomit tew formas kerne bob sisi si sison seen été ngi tew yaa nuy mam bamba yaa nuy dund ak bu nuy nun bamba lan sentir ya bari njariñ mam bamba ya bari njariñ sa nafin bila dararin ki moy njariñ nun bamba lan sentir Ahmadou Mbakke baraag la dëkke woon mësula dëkk cim taax sakketam yooyee waral gaañaa ngi erplis nun Bàmba lañu sentir Ahmadou Mbakke ay karbat la daa solit karbatam yee waral gaañi maraakiis nun Bàmba lañu sentir cey bernde yi bernde bernde nag ci la alxuraan ne kuloo wasara boo màggala ngoog yow gan gi loo sentir belli xar kanam tey ree ci cant gi la sol lu rafet laal sa laj ko loñ gaañi servi te naan la loo sentir nga naa leen mayga mbaa sax nga naa leen dibi mbaa mis wala sos sax yaay sentir yow gan gi loo sentir salaat sun orne ñooñ ay ganaar teg ca kaw def si këccëb def ci mayonnaise def ci pomme de jox gan ñi ñuy sentir am na nu macaroni ak couscous ak petit pois yi ak vermicelle beeg spaghetti bi yow gan gi loo sentir ceebum am na ceebum suyeer ceebu keccax kaani sa laxit mbaa kaani xëy ñoo gan gi loo son sukani amna ak oromasi ak yaama tooñ am na sa xir ñoy may amna yow gan gi lo sentir maxalum lawbe amna makhalum nar ciebu ceebu koppin ceebu naat maxalum saalumit yow gan gi lo sentir ñele di magal di jurus kamilia ñele di magal yekati khasida ya ñi wala fal di ya, tag say xibam ba bàyyi faali saxoo si kartu yàlla ñee feetoo bernde ya ngir ku fay gan ñu ber la bernde la bernde nak ci la xeti plan yëpp am na fi looy suwaasi loo si xër-xëri ba fi café Touba Douté am na nes café si xew café ak meew mbaa meewum kese mburum fariñ mburum baguette mbaa tapalapa mat leen pain wala keek yaay suwaasiir laaxu bisaab laaxu soow am na na tëri ceebu ngot ak ceebu ganaar yaay suwaasiir am na misuy am na tufe am na it salade vermicelle petit pois ak cere yaay suwaasiir am na xëti am na copine am na ay naat dañ koy sab tegal gan ñi ñuy suwaa siin waxtu